virement mhm. l'a constaté. Mhm. et elle semble même iné vous avez même du mal à l'expliquer. Mhm. cest à ngeen fustiger le niveau d'endettement du Sénégal. fustiger du Sénégal. ngeen ñëw entre mai ak juin. cinquante loolu dañ ko fay fekk wala ñun ñoo ko eurobond bi. mais lan lañ fi fekk. ay engagement yoo xam ne mënuñu ko ñàkk def. parce que dañ ko fay fekk c'était prévu dans le document de programmation budgétaire. Eh. ne bu ñu tolloo ci période boobu dinañu leb mais mënoon ngeen bañ mënoon mënu. non non mënuñu ko ñàkk def parce que tout xam nga lépp. ab mënoon ngeen ci renoncer. non lépp non non mënuñu ci renoncer euh, yeneen forme de mobilisation. non euh, yeneen forme yooyu. kii yi ngeen lancé dans le dans le marché financier. Eh, yeneen forme euh, yooyu 250 milliards 150 milliards yi ngeen ci yokk yëpp tamit lu tax ngeen yokk ko ci. Maymuna li nga fi fekk en cours xam nga ñun ban det ba bu ñu demee ba année prochaine ba ñu teg sunu budget ba pare di doxal man endettement yooyu moom nga may reproché ne lu tax ngeen def ko te boobaa it on peut avoir deux raisons parce que le problème qui se pose mooy dañu doon am ay endettement yoo xam ne c'était pas structurant tey man bu ma defee benn endettement boo xam ne leer na ma ne li muy impacté en terme de coût de valeur sur le plan économique et social dafa jar le ko man je n'hésite pas à le faire mais le problème bi ñuy wax endettement mooy endettement boo xam ne c'est structurant. mooy seen forme endettement bi euh, un taux exorbitant de sept virgule soixante quinze pour cent euh, une durée de maturité euh, moins longue et la la l'eurobond a servi à dépenser à à financer des dépenses courantes. loolu lañ ci bañ. waaw mais loolu kan moo def loolu <laughs> mais ku def loolu. non destination bi. non mais dama la bëgg a wax ma ne la. destination bi seen responsabilité la. ba pare négociation bi yéen la de. mais may Maymuna dañoo ne woon dinañu def may eurobond. Maymuna bu ñu yegsee période bi waaye to yéen yéen a jël cabinet euh, jël yéen a jël JP Morgan et puis bu n'informez même pas les Sénégalais. sur les sur les conditions mais Maymuna Maymuna est-ce ne loolu. may mun a c'est-à-dire y a pas de transparence. waaw mais may mun a yow yow nga mën a jël loo xam ne dañ ko tënk ba teg ko ba nga xam ne tey ah mais li ñuy dépensé nii yëpp dama la ne li ñu fiy dépensé nii yëpp te tey déjà ñun xam nga fan nga ñuy àtte su ñu amee suñu budget deux mille vingt cinq li ñuy engagé mooy li ñuy def ci deux mille vingt cinq sànq dama la jox misaal ci kuy togg ñëw ci ndugu jaamur la mu teg ndugu ba mu teg mënatoo changer ndugu bi. tey bu amee benn xaw ma kib lañ koy wax xaw ma lan bu ci mënta ñàkk a dem nga dem jënd ko parce que c'est un ensemble. ensemble boobu may mun a yow munoo cee dérobé wu. may mun a présentement budget bi may doxee nii man c'est le budget ñi fi nekkoon ci laay dox. waaw mais yéen yéen a ko waaw mais monsieur le ministre ko négocié c'est-à-dire c'était c'était une prévision budgétaire. Mm-hmm. d'accord. Mm-hmm. mënu leen si dérobé wu. mais urgence bi dafa la mais mais mais yéen ko négocié bi may na la nga changer. par ak li nga war a régler ci problème boobu. ñoom par ak li ñu ci def donc on a urgent quand on a urgemment besoin d'argent on peut accepter n'importe quel taux. non ce n'est même pas ça non ce n'est même pas ça c'est une boo xam ne ñun defuñu ko mais Maïmouna yow je donne un exemple tey su fekkee ne ci ñi fi nekkoon ci loolu la ñuy fay salaire da ngay toog ne du ma fay salaire. Ah, mu ngi noonu c'est-à-dire li ñuy toj budget bi lépp liñ ciy def nii. ñun bés bu ñu toogee ba war a natt suñu budget xool suñuy recette xool suñu dépense yi ñu prévoir loola lépp lu ñuy def nag di ko leb ñun la engagé dama lay jox benn exemple. mais li ngeen li ngeen li ngeen li ngeen est-ce que xam nga ne may mun a. may mun a li ngeen levé au au auprès de la BRVM nag loolu loolu loolu c'était pas une prévision budgétaire. non dama la bëgg a wax ne loolu yéen a dem lebaat. dama la bëgg a wax ne. ñun ba ba FMI di leen di leen di leen. dama eh, dama ne yaa <laughs> vous êtes en situation de surliquidité. dama la bëgg a wax li ngeen di leb ni yëpp soxlaaw leen ko. <laughs> non xam nga <laughs> may mun a xam nga lu ma lay wax dama lay wax benn mbir. gis nga dans ce projet là y a des projets de financement d'envergure yoo xam ne te des centaines de milliards te projet yooyu lépp financement innovant la amul benn impact sur l'endettement de l'État ñun yooyu la ñuy attee te yooyu pour ñu def ko c'est à partir du budget de deux mille vingt cinq mais budget bi ñu fi fekk nii mënuñ ci dox loolu buñ liñ ci commencé réaliser ci loolu te di nga gis ne amul benn impact te gars yi lii ñu def ñoom waroon nañ ko mën a def sur l'endettement donc yéen fu mu nekk nii da ngeen nekk ci urgence impérieuse. mais bien sûr il que ngeen leb. mais est-ce que xam nga ne Maïmouna euh, tey su ñu waxoon tey dama lay wax rek su ñu waxoon léegi ñi nga xam ne moom la ñuy yàq. parce que ñun loolu la bañ dañuy bañ a kii ñoo ñu yéen ba léegi opposant nga moo tax waxuñu yàq yàqu yi mais tey su ñu toogoon wax yàqu-yàqu yi askan wi dañuy génn jël yet di wër ñi fi nekkoon. pour dóor leen. barki yàlla. ah. comme yan je te jure wax. mun nga ma wax ñaari yàqu-yàqu. comme lan. maanaam gis nga euh, euh, <laughs> li ñuy wax euh, golo ci toolu gerte. Hmm. mais ci ban secteur. presque beaucoup de secteurs. ma jox la benn exemple mais jox ma ñaari exemple dama lay jox benn exemple. non du du ma du ma du ma wax exactement li kii bi mais dama lay jox ñaari exemple ba jox ko wax la yàqu-yàqu yi ma jox la benn exemple rek. est-ce que xam nga ne am na compte bancaire boo xam ne feeñul sax ci ci rapport IGE yi ci passation yi. ci ban ci ban société wala ci ban ministère. moom laa ne du ma la ko wax. yu mel noonu non parce que état banque ba. Hmm. donc dama la jox exemple yu mel noonu maanaam bis bu nekk loolu ba bari ki démb la bis bu nekk yaa ngi gis ay yàqu-yàqu. moo tax ñi fi nekk ñii ñii dañoo waroon toog nëbbatu man ku ma gisee ñuy wax sax daf may jaaxal. ah du ñu wax. on est en lu ñuy wax lu ñuy wax.